lay teema jóg way fi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi sant lillaahi jigéen ñi ci dun jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna ko ñépp jaari jahim tey jaaratullaahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon wuur ya daaxare dun dem jannatullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuubaali man baalaxaayim am njaaratullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuubaali man baalaxaayim am njaaratullaahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuubaa du dem naari ngir maam jaaratullaahi haddis ba ne ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuubaa du dem naari ngir maam jaaratullaahi sëñ Fallilu Fall waaw sëñ bi waxaale ko Cheikh Moustapha Cheikh ne mi ngi toog fii ci ginnaaw waaw waaw dafa nag lu muy jàmba ca tànk ba waaw na ko sëñ bi dégg waaw na ko sëñ bi dégg waaw sëñ maam Cheikh Fall sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy taab sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda da ko yebal boole ko baayam muy Serigne Cheikh mii ak Serigne Assane ñoom ak mboolem rakk yi Serigne Soye Fall Serigne Moustapha Fall mu Serigne Cheikh naa ngi nii toog ak mboolem njabootu Cheikh Fall gi ñoo ñëpp ànd ginnaaw Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng teew fi ci ndigalu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda wuy si ci woote bii ñu déglu Serigne Fallou mi Serigne Cheikh jox kàddoom mu wax la kàddu yi Serigne Amdi Fall Modou Mbenda Serigne Fallou nee na Mbàkke mi ngi lay jottali kàddu yi Cheikh Moussa Fall moom Serigne Modou Mbenda ak i cant ak i ngërëm waaye nag mu def ko ci kam ji di jëwriñam di sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu ànd ak rakkam yu tedd yii ak njabootam ji ak mboolem murit yi Mbàkke ni nan ko ñëwal fii teewal si ko fii ci bisub maam jaara bii ci bisub Serigne Touba bii ci bisub lislaam bi moom Serigne Cheikh Fall mii moo ko fi teewal si ak rakkam yi mu àndal ak njaboot gépp ñëw nag di la jottali ay siyaaram di wax nag Mbàkke lam la daan wax Serigne Amdi Fall nee na Mbàkke mi ngi yeesalaat ak njébbalam ca fas yéenee doon lam doonoon di am murid rek di sa ndigal faawu li ñaan Mbàkke nga dimbali ko ba mu jekk ko ci di ko jëfee nee na bis moo ngi la ciy ñaan nga defal ñu jàmm ci àdduna jëpp Mbàkke sa maam ju baax ja kat muy seexul xadiim wax na jàmm moo gën tey moo gën bu ëllëgee te ñun nag Mbàkke ñun Baay Faal yëpp ñoo ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal jullit yëpp. di ko ñaanal it murit yëpp di wax ni bis nag bisum ngërëm la de bisum cant la kon nag nee na ñoo ngi sàkku si ngërëm aku cant ndax ku sant rek ku sant dina la gërëm te ngërëm rek moo ni delloo fan bàyyi ko woon muy àjjana jëndëkkoon kon mbàkke ñun bàyyi faal yëpp ñi nga ànd sëriñ am di faal di sàkku ngërëmul suñu borom di ko sàkkul jullit yëpp nag di la ne nag Mbàkke lañ la waxoon Mbàkke sëñ Falilu nee mi ngi del di ko waxaat sa Mbàkke waaw moo gën ruu yi àddina ak ruu yi ya kon nag Mbàkke jaayante nañ ak Sëriñ Tuubaa se Cheikh Ibra Fall mi nu ñu yónni sa ruu gi Mbàkke jaayante ko ak sun ruu yi lu ci yàlla sun borom namm na ko namm ci sun ruu yi Mbàkke nga toog fi ca nga toog fi yeggal sa liggéey bi ci Seexul Xadiim nee loolu Mbàkke ñu ngi koy di ko ñaan sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall loolu nag amuñu ci xel yaar amuñu ci ak déng-déng nee lu nu gëm la lu bëgg la lu nu la sa ruu gi nag Mbàkke li nga koy doole ñaan nang fi toog lu soob defal Sëriñ Tuubaa lépp lu mu bëgg defal sa bopp loo bëgg Mbàkke te ànd ko wér ànd ak jàmm nee loolu lan lay ñaanal ñun Baay Faal nee na ñun nag lu la soob ci ñun Mbàkke nee na jubu nanu lu la soob Mbàkke jubu na Sëriñ Amdi Faal ak mboolum njabootu Cheikh Ibra Fall gi. ndigal li ñëwoon barki démb ca moom. ndigal li ñëwoon ko Cheikh Ibra Fall ak njaboot gi. Baye Fall yëpp dégg nañ ko. muy dogale suñu borom yem dogal ca marché Ocass ca Touba. ca lan ca war a defaat lépp. nga wax ko Serigne Amdi Fall. ngir mu wax ko Baye Fall yëpp. fas nañ ko yéene de sëñ am dee ko wax. liggéey sa maam bii nga doon liggéey sa jumaay ci Touba nga fas yéene tàmbali liggéey bi altine nee na loolu agsi na ci moom nee na bëgg fukki waxtu bu jotee ci altine ja fu ab Faal nekk na ñëw ca daara ja ñu tudd fa yàlla nang ko bëgg ba déggaat sa ndigal nee liggéeyu marché Ocass bi it nee na ñaar fukki fan la ak ñeent ci weeru tubaab nee fas yéene ko tàmbalee ci vingt bi di ko defar ba mel na nga ko bëggee yow mu Seex Mamadu Muntaxa moo ko ak fu dara nekk ci waru faa nekk sëriñ Fallilu nee na kon ñu ngi koy jottali suñu bopp ñun murid yi nee na mi ngi koy del di ko jottali suñu bokki murid yi foofu waay mën a nekk ca la nga nekk waroo caa nekk jéem koo dindi sa bopp balaa Baay Faal yi egsi di ko dindi sëñ bi jox digal ci bu ñëwee lu Seex Mahamadu Mbàkke bëgg Cheikh Ibra Fall dina ko def moom nee na ndigal laa ngoog nee na kon ñi nga sant bu baax gërëm bu baax Mbàkke nee di sàkku nag nee jëwriñ joojee di Cheikh Moustapha moom sëñ Modou Mbenda nga gën ko fa yàggal nag gën koo wéral ba nga bëgg rek mu mane ko na nga ko bëggee su ko manee dina la ko jëfal ànd ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi sëñ Fall nee na mi ngi tuub cay jéggulu kàddu yi ndax am néew moo wul wax de muy ne wartu yëngal ab cër bu nekkee fi sëriñ bi danoo war a mel ni ndee war a ñu yëngutu war a ñoo wax waaye lépp lu la ndigal may loola ak topp la waaye lu la ndigal mayul sëñ bi nee na day mel ni ak mooy la te ñun fas yéene wunoo mooy sëriñ bi mukk sëg bëgg rek ci leen bëgg nekk Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan nag ñaanu kóllëre ñaanu xarit ñaanu njaam sëriñ Cheikh Mbacke mii toog ci sa ñu ko wax sëriñ Cheikh Mbacke Baye Fall Mbacke nga dimbali ñu ci de sëñ Cheikh Mbacke de fi gën a yàgg na gën a wér ndax lii mu defal ñun ñëpp bëgg nañ ko ca mënuñu ko kon sëñ Cheikh Mbacke Abdou Latif ko man dimbali ñu sëñ Muntaxa ci sëriñ Cheikh Mbacke Baye Fall mii na gën a wér gën a yàgg ba nga bëgg mu defal la ko na ko bëggee te ànd ko ak murid yëpp jërëjëf Mbacke sëñ Cheikh Mbacke Fall waaw waaw sëñ sëñ Cheikh ñu ko wax sëñ Cheikh Mbacke Baye njaxas bi nee mi ngi tuub kàddu yii tey jéggulu waaye liggéey bi nga nu nga xam ne dañ ko fas yéene tàmbali nee ñi ngi sàkku Mbacke ci yow bu nu kenn Baye Fall nan ñu bàyyi rek ginnaaw jox nga ko nan ñu dimbali ba ñu atte kenn de loo bëgg di ko am bu nu kenn atte kenn sëñ Mountakha li nga bëgg Cheikh Rafal dina ko def. sëriñ bi nee na alhamdulilahi rabil alamin sëriñ bi nee na alhamdulilahi rabil alamin mu ne gën a dolli cant rek. ci jataay bi. mu ne ci jataay bi. sëriñ Fallou yi. mu ne kaddu sëriñ Fallou yi. mu ne dégg na ko bu baax a baax. yóbbaale na lépp. mu ne yóbbaale na lépp. dégg naa ko dégg ko bu baax. mu ne dégg na ko bu baax. waaye kaddu yi mu ne waaye kaddu yi yóbbaale na lépp. dañuy yeesal lépp rek. mu ne dañuy yeesal lépp nag. gën a feddali lépp. mu ne di gën a feddali lépp. di delloo gën a delloo suñu bopp. mu ne di gën delloo suñu bopp. fa mu ne fa ñu war a dellu nag. muy delloo suñu lépp sëriñ bi. muy delloo suñu lépp sëriñ bi. kaddu sëriñ mu ne kaddu sëriñ Fallou yii. yaatu mu ne yaatu na lool. kawe na lool. xóot na lool. waaye lépp nag. mu ne benn dellukaay rek la am. muy sëriñ bi. mu ne kon nag lépp. mi ngi ci diggante Cheikh Ibra ak sëriñ bi. mu ne kon li ci am solo rek. fii mu ne fii sëriñ Fallou nekk rek. ñun ñëpp. mu ne ñu delloo fa suñu bopp. loolu rek mooy li ci am solo. mun nañu teewlu rek. mun nañu rek. diggante sëriñ diggante së. diggante sëriñ bi. diggante sëriñ ak Cheikh Ibra. suñ lépp biir. suñ lépp ak biti. ak biti. ak ëllëg. mi ci diggante boobu rek. lépp. mu ne nañu gën a yeesal suñu lépp. gën delloo suñu lépp. gën a delloo suñu lépp. gën a nekk rek gën a nekk rek ci li ñu war a nekk. loolu rek mooy li ci am solo. sant yàlla bu baax rek. moom mi ñu boole ak sëriñ bi. sant di sant sëriñ bi it. moom mii suñu lépp tey ëllëg. moom mii suñu lépp tey ëllëg. kon suñu mu ne kon suñu lépp daal. ak cant rekk la. di gën a di ak fabu rek. di gën a gën a rek. delloo suñu bopp fan la bopp fañ ko war a delloo. mu ne waxu sëñ Fall yi. lépp mi ngi ci biir. mu ne lépp mi ngi ci biir. xam ne day tax rek suñu xel gën a dal. day tax rek suñu xel gën a dal. suñu yaakaar gën a dolliku. suñu yaakaar gën a dolliku. suñu njort yit gën a rafet. suñu njort yit rafet. suñu borom nee na. suñu borom nee na. moom. moom. mi ngi fi. mi ngi mi mi ngi fi njortal rek. njortal njortal njaamam. lu njaamam mu ne njaamam jort ci moom rek. mu ne foofu rek la nekk. noo ngi mu ñoo ngi gën a delloo suñu bopp. sëriñ bi ci gannaaw Cheikh di fa yéene gën nekk ci gannaaw Cheikh Ibra. la loolu rek mu ne lool rek moo am. amuñu mu ne amuñu leneen. nañ sant rek. sant rek. di gën soññ suñu bopp. di gën a soññ suñu bopp. gu rek. te nooyi gu ñu nooyi rek. gën ngeen soññ suñu bopp. nañ ca gën a soññ suñu bopp. nekk foofu rek. nekk foofu rek. fa sax fi dàkk. jërëjëf. sant nañ lool. mu ne sant nañ lool. ci jataay bi. am nañ ci mbégte lool. bu rëy a rëy a rëy. mu ne xol sedd na ci guy. mu ne xol gën na cee seddaat. ñeneentu téeméeri at ak junni mooy lañu wax. loola di fanweeri at ngir Bamba lillaahi nee leen salaamun buso jaaratuna yaa doon mariama yow maam jaaratullahi yaa doon mariama yow maam jaaratullahi isa bnu mariama ruuxullahi kundaamoon jibrilu ñëw faye ko nu jaaratullahi cheikh bamba ne xaadama lam yakun nekk la mu am wala yakunu li mumkinin min allahi maa lay nuyoo lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara